99 point 0. Mm. ak it ñi lay topp ci digital bi. Mm-hmm. digital nag bu ma ko waxee rek sama xel dafay daal di jëm ci Rahim Lo. Rahim Lo moom it ngi koy nuyu le grand Rahim. Euh, ci liggéey bu am solo bi nga xam mu ngi koy def. Mm. Euh, di nuyu bu baax a baax euh, Pierre Édouard Faye ak kii oustaz Assane Diouf. Mm-hmm. ci wàllu coordination bi wax dëgg ñu ñëpp mm. di nuyu bu baax a baax Abdoulaye Bopp sama naatangoo. kon daal ñu ngi nuyu ñëpp ah, ñu ngi kenn. am na solo ayca ah, Abdoulaye Bob nuyu naa la. jërëjëf euh, DJ Cool maa ngi lay fay. di la jaajëfal. Hmm. Euh, ci kóolute beeg euh, ànd beeg Walfadjri rawatina sàpp dagin ndaay saay bi saf nga ci sàpp. ñu ngi la ci jaajëfal jaajëfal lu doyen Seydina Omar Ba maa ngi koy jaajëfal bu baax ci kóolute beek ànd beek wal fajiri hmm. loo ci digital bi waaye nag jaajëfal suñu mbokk auditeurs yi nga xamante ne saay su ne ñu ngi safoo Walfadjri FM ak Walfadjri TV saay su ne dañoo wéy di ànd ak ñun ànd googee nag ànd gu yàgg la te itamit sax dàkk ba tax na Walfadjri bu amee jafe-jafe eh, mooy askanu Sénégal ñu bari ci ñoom am nañu jafe-jafe ndax dañuy wéet dootuñu mun a taataan eh, xibaar Euh, ci Walfu TV loole sax bokk na ci la ñu war a càmbar léegi ci kanam ak euh, suñu mbokk auditeurs yi daanaka tey ñoom ñoo moomee vent dañ leen di mm. gunge rek ci émission bi tey mm. taataan seen xalaat euh, ci 88 628 99 99 111 ayca mais laataa loolu bëggoon nañu nga taxar ñi ñu tey tuuti rek ci li nga mm. xamante ne moom moo wàcc ci xibaar yi tey waa bokk na ci dossier fajiri ak Sénéra am na lu ci bees bu ñu sukkandikoo ci maître Cheikh Niass PDG groupe Walfadjri mhm. jot naa kalaame mbir yi ca cour suprême bëgg nañu cour suprême addu ci ca na mu gën a gaawe ngir neenal dogalu sénéra bokk na ci tamit xamal nañu cour suprême ne dañu amal tende falu ñaxtu ajjuma ji ci makkaanu groupe Walfadjri samedi ña nga ca makkaanu sénéra ngir sàkku ci Babacar Diagne mu jóge fa dimanche gi ña nga ca place de l'indépendance ngir ñaawlu ni démocratie euh, tumuranke ci mim réew rawatina liberté de la presse euh, presse bi tamit àddunañ ci wàllu politique ci wàllu troisième depuis Dakar dem mhm. dikk jiite parte bi di AG jot na ne jot na njiit réew mi Macky Sall bañ laalati lu jëm ci troisième manda ñëpp sax munoon nañ cee wax ba mu des moom moo ci waroon a mujjee wax euh, ci wàllu troisième mandat xel xalaatul njiit réew Sall def ko ndax daj na ci lu méttee métti ca nguurug soppi ga woon euh, xam le na itamit ne candidat lay doon moom maître euh, Moussa Diop leneen lu journaux yi xëyee bokk na ci tamit wàllu politique ba tey dossier Ousmane Sonko am na ci beneen plainte goo xamante tegu na ci ndoddu njiital euh, Pastef plainte googe ma nga bawoo ca Mbàkke gannaaw la fa jotoon a yàqu euh, ci yëngu-yëngal euh, waa Pastef doon fa amal ndaje politique leneen itamit ci ñi nga xam ñoom lañ fa jot a jàpp juróom benn fukki doomi aadama ak juróom yoon mu ngi leen di gestu bu ñu deful ndànk ñu bari ci ñoom sax jege nañu lool buntu kaso bu ñu sukkandikoo ci li yéen kaay xëye tey xëyee nañu itamit li nga xamante ne mooy tolluwaay réew mi jafe-jafe askan wi ci wàllu accident cyclo Euh, dogal yi ñu fi jëloon te lu bari faf sax naxasaay euh, wàllu làmb euh, Modou Lo Boy Niang ak seen jàkkarloo gi nga xamante ne amal nañ ko démb nii la xibaar yi bindoo la ca gën a fës nag mooy coupure bu Walf TV ndax euh, signal ba sénéra moo ko dagg tàppit ni ki guddik euh, ajjuma euh, jàpp samedi ji ba léegi munagul tàkk ndax juróom-ñetti fan la ñu àppal Walfadjri am na solo jaajëfal nañu ko bu baax a baax moom naa Omar Ba ak Abdoulaye Bopp mais bu ma la déggee dafa mel ni Cheikh Niass dafa solaat robe bu avocat bi waaw maître <laughs> parce que léegi léegi dama dégg nga wooye ko maître maître waaw ah, solaat na robb bi de solaat na ko teeri ji nag ca Cour suprême ndax euh, cin bu tee tàkk hmm. lañ koy uppee ba tax na euh, mbir yi daal jax na fu mu toll nii hmm. euh, xëy na sax cour suprême am lu mu ci dogal waaye nag xam nga mbirum yoon hmm. ba tax na daal foo mun a jaar pour won askan wi ne sénéra jaarul ci yoon na mu doxalee ba dagg ba dagg signalu Walf TV jaarale ko ci yoon amul avertissement amul mise en demeure jékki-jékki rek dagg ci loo xamante ne askan wi dañ koo yittewoo di ko déglu di ko seetaan saay su ne ngir mun a taataan xibaar ay fan a ngi nekk askan wi amatuñu xibaar lu jëm ci télé bi doon lu leen metti lool naka lañ koy dundee nag boobu ba léegi la ñu bëgg a taataan seen xalaat ma feggoog Seydina Omar Ba Euh, Seydina ñoo ko gisandoo déggandoo ko yàgg nañ cee ñaxtu ci lii Walf di dund ci waxtu wi le euh, sénéra xañ askan wi ñu xam lu réew mi fanaanoo ak la mu yendoo démb euh, tey noo gisee dossier bekk avancement yi ci tàmbale am ci wàllub yoon waaw dossier bi mën naa na ne am na lu ma ci wax tey ci suba mhm. maanaam duñu dañ ci di ko wax waaye li wértu wër comme ni nga ko waxee rek tey ji plateau bi dafa nekk plateau boo xam dañ ko fas yéene jagleel askan wi. Mhm. Euh, sàkku si ñoom aussi ñoom it ñu dugg. kenn ku ci ne joxe ci xalaatam ñu nag ay démocrate la ñu ah. euh, ku ci gis ne. Euh, taxawaay bi am na solo waxal. Mm-hmm. Mm-hmm. ku ci aussi am aussi boo looy critiquer aussi. tout à euh, nañ la ko ah. Mm-hmm. nangul la ko parce que ñun si ay démocrate lañu. tout à fait euh, ko wax ba pour ñuy wootee pour dañu dañu neexal. waaye képp daal koo xam ne aussi am nga ci logique critique aussi mën nañ la ko ubbil mais l' essentiel ay démocrate mais ak lu ci mënti am daal dañu jàpp ne émission bi askan bi lañ ko jagleel. ñu wootee joxe seen xalaat par rapport ak nguur gi par rapport ak taxawaayam ci wàllu liberté d' par rapport ak nguur gi décision bi nga xam ne jël na ko daal di te coupé euh, coupure mm-hmm. euh, signal Walf TV naka ngeen ko gisee euh, kon loolu ci 88 628 99 99 ngeen ba 111 lay doon waaye laataam ñoo tàmbali waxtaan wi mm-hmm. rek damay d'abord interpeller DJ DJ Cool DJ Cool noo dundee coupure bi mm-hmm. waaw mbetteel nag bu am bu mag lañ ci am ah mbetteel bu mag lañ ci am parce que wax dëgg neex yàlla Euh, kër gu toll ni Walfajri ak liggéey waam solo bi nga xamante ne mi ngi koy liggéey ci àdduna bi waxuma sax ci Sénégal wala ci Afrique mais ci àdduna bi euh, euh, boo ko daggee mooy daanaka xañ nga àdduna bi yëpp mhm. information am na auditeur bu nekk ci ligne bi mhm. comme ñoom lañ jagleel yëf yi nañu ko jël après ñu dikkaat ci waaleykum salaam ku baax bu man la Njaga Samba dem Mbaawaan Kayaar bismillah maa ngi nuyu Seyna Omar Ba sama njaatige. Mm-hmm. moom xam na ma parce que bi ma ñëwee wal fajiri yoon wi ma ko jëkk a ñëw moom moo ma yéegal ci kaw. Mm-hmm. ndeysaan mu laaj ma boobu maa ngi feet oustaz Sofane Diouf. Mm-hmm. mu ne ma kaa nga toog fi xaar ko. maa ngi nuyu ab laay Bob. wax dëgg yàlla nit nit baax ngeen. yal na leen yàlla doole jàppale. man lenn rek moo ma metti ci senegal mm. lenn rek parce que man 88 la ma yàlla dimbali ma gis liggéey wal fajiri ci Thiès. boobu maa ngi kër Boubacar Sall nekk kalaw bu la bo euh, après euh, ñu am problème ak Serigne Diop PDS rénovation liggéey bi fa wal fajiri def ma xool ko ci laa jàppe wal fajiri ba léegi man nag nit laa boo xamante ni nii fu dëgg nekkul nekk ko dëgg laa gis ci wal ba tax ma jàpp ko ak lu mën a am ak lu mën a am manifestation bu ñu wane yaakaaroon naa ñu wax dëgg yàlla daldi ci si ñaari mhm. yaakaar naa jaru ko woon mhm. te nag wane loo xamante ni dina tax bu ëllëgee ki mu neex. mu xam le xew ki mu nag ki mu neexul mu xam le xew. Hmm. tey loolu bu ñu wanewul woon manifestation bi est ay que tey brigade de ba fa wàcc ak image yi ñu am est-ce que dinañ ko am. Hmm. dafa am loo xamante ni nit dimbali yàlla ci dëgg. Hmm. mooy dimbali sa bopp. néewal doole dëgg mooy néewal doole dëgg parce que ku néewal doole dëgg néewal nga doole sa bopp ku dimbali dëgg dimbali nga yàlla tey ku dimbali yàlla yàlla dimbali ci dëgg. kon yàlla na yàlla doon lay dimbali ba wal fajri yàlla nañ ko yàlla sàmmal man du ma wax ci politique parce que li leer ba leer moom du ma wax ci parti du ma wax ci pouvoir du ma wax opposition mm. waaye sañ na maa wax ci média bi nga xamante ni moo ma itteel te ku ma xam-xam nga wax muy wal fajri mm. kon loolu rek moo ma itteel yàlla nañ ko yàlla sàmmal am boo xamante ni yàllaa na koy aaral ba koo xamante ni lu gën a kawe suñu njort hmm. ak képp koo xamante ni bëgg nga mu aaru hmm. yal yàlla boole aaral boppam hmm. asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu wa fi amaani laa am na solo jërëjëf sàmba dem Deme euh, Seydina Amar comme euh, li ñu doon wax léegi léegi euh, bu beneen auditeur ñëwee rek ñu jël ko man ci intervention Cheikh Niass mm-hmm. laa laa déggee sama kër laa toog dégg muy expliquer façon bi nga xamante ne noonu la ñu ko coupé maanaam euh, euh, waa ji woote na. Mhm. Euh, moom maanaam woote gi li ko waral moom mooy na sa waay arrêté. Mhm. yëf yi. Mhm. wala moom mu coupé ko. ci daar daar. c'est-à-dire loolu man moom loolu moom mooy li ma gën a dépassé. noonu la ko waxee de. na ko arrêté wala mu coupé ko. ci loo xamante ne maanaam aspect commercial la. nguur gi. waaw bi ñuy ko bi ñuy def seen manifestation. Pikine dañoo fay. ñu jàllale leen ko. Pastef di def seen manifestation fay ñu jàllale leen ko nga ne du fi jàll. mais dictature dafay daal di dikk. vraiment yëfi dictature képp lañ fi def. jaay doole jaay doole rek lañ fi def amul leneen. ci coupé boo xamante ne jaarul ci kayit. loolu mais moom la sa wax amul mise en demeure ah amul amul amul avertissement amul euh, coupé mbaama coupé <laughs> moom daal daggal mbaama dagg xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga lan moo ñu wuutelee hmm. ak euh, bàyyima yi hmm. ma lan moo ñu wuutalee ak euh, jungle bi. Hmm. moom mooy ay loi ak ay règlement. absolument gis nga loi ay règlement fu mu amul rek ña fa nekk ay bàyyi ma la ñuy doon. Hmm. xam nga tey jii bu fekkonte ne loi ak règlement amoon tey ci biir àll bi. gaynde du fekk kéwél fu mu dëkk fu mu toog. Hmm. mu yot ko ba jàpp ko rey ko. ci kanamu ndeyam wala ci kanamu baayam. kéwél di ko toog di ko seetaan ba mu lekk ko ba mu jeex tàkk te amul fu mu koy calamité. loolu moom moo ñuy différencier tey. Euh, Seydina mën nga mën nga jël ko ne ci ligne bi Seydina mi euh, asalaamaaleykum. waaleykum salaam a rahmatulah Seydina Omar. naam. Euh, Ousmane Touré la Kër Laayeen Xorede. ay si bisimilah Ousmane. Euh, ñu ngi lay ziar bu baax. di la ziar baax a euh, di ndokkeel mbooleem soppe wal fajri mhm. te di leen ñaanal yàlla bu baax a baax a baax. Mhm. amiin di wax Cheikh Niass ne ko. Mhm. xeex bi moom du ci wéet. état bu ko neexee bu fekkee ne am na doole. na tëj wal fajri définitivement. tam xam ne maanaam tëj gi mu tëj wal fajiri une semaine safut ni maanaam képp ku ñuy buntu xatal depuis 2012 ba tey nga toog te di ko muñee yàlla li des bareetul nguur gii nekk bi di buntu xatal wal fajiri Macky na fàttaliku ba Pape Alé Niang di jël Jakarta Kaolack di ñëw di ko fekk Fatick di def ak moom reportage pour xëy tegal ko askanu Sénégal hmm. ah, ah safla Moussa Diop hmm. pour kayit tegal ko askanu Sénégal Macky Sall dafa war a xam ne moom bu nekkee président Sénégal bu nekkee à cent pour cent quatre vingt dix pour cent yi Walfadjri moo ko favoriser kon tey dafa ñëw te fayut naar bi xoromam mhm. waaye it dañ ciy sante yàlla bu baax a baax a baax ba nga xamante ni mën naa tëj Walfadjri télé bi waaye mënta tëj internet bi comme mënta tëj internet bi nag ñun sante nañ ko yàlla <laughs> ginnaaw bi nga xam ne bu ñu xëyee dem suñ liggéey liggéeykaay amuñu tele bu ñu seetaan amuñu lenn lu dul suñ téléphone yi am te yaakaaree ko suñ connexion kon ñun ba tey Walfadjri ngi fi def di wal di fal di Walfadjri ak ñun mm-hmm. te Macky Sall day wàcc Sénégal bàyyi fi Walfadjri muy Walfadjri ak ñun mm-hmm. li samp Walfadjri moo ëpp doole téeméeri fukk ak juróom état bi mu yor moom tey mm-hmm. kon na rafetal wéyam rek te bàyyi Walfadjri mu continuer di nekk wal Walfadjri dina wàcc nguur gi bàyyi wal fajiri mu nekk di wal fajireem ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ñoo ngi ñaanal Cheikh Niass yàlla suñu borom bi subhaanahu wa taala yàlla na ko kàttanal te dooleel ko amiin amiin ya ko barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaanal Sidi Lamine Niass yàlla yàlla yokk leeram te taat ñu ci barkeem di jaaxi Mawlana Cheikh Ibrahima Niass wa maa saalika ala llaahi bi wa salaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf jàpp te te bàyyi surtout saalum saalum Mhm. wal fajiri suñu wal fajiri la. ak mbooleem néew gi doole ak mbooleem ku amut bat maa ngi lay wax vendredi incha allahu rabbi ñëpp nañu toog buntu place wal fajiri manifesté wu ko jare jaree nañu dem ba buntu général ñu compte jour yi nga xam ne wal fajiri tëj nañ ko ko incha allahu rabbi bu ñu yeggee ba ca fay impôt maa ngi wax Cheikh Niass na ko na dëgëral boppam te xam ne jour yooyu nañu ko dindi ci impôt wal fajiri bi mu war a fay. Mhm. jërëjëf dañu ko dindi ci a fay hmm. jërëjëf jërëjëf Ousmane euh, wax dëgg yàlla kàddu yi am solo hmm, ñu ngi koy sant di ko gërëm wal hmm. euh, pour permettre asu yi ñeneen ñu mën a dugg rek 88 628 99 99 ngeen bës 111 yaa ngi doon wax lu am solo léegi waaw dama ne gis nga loolu moo ñu différencier ak bàyyi ma yi waaw c'est que li ñuy différence yi ak mal yi maanaam euh, loi ak règlement te je pense bien que ne lu jëm ci wàllu télé ak na nga xam ne lay doxee dafa am ay organisa ay organes yoo xam dañ ko fay teg pour ñuy réguler. Mhm. te wax naa ko sànq ci suba ak Ablaye boobu dama ne. Mhm. ci code de la presse bu bees bi am na benn article boo xam dañ ne boo fekkente ne yaa ngi dem bay tëj <coughs> ab euh, mhm. na yoon yoo war a mën a jaar pour jéem a couper ab signal. Ah, wax nga ko sànq. am na mise en demeure. am na lettre d'avertissement. am na leneen am na leneen am na leneen. xam nga lii gën a ñaaw mooy nga toog sa biir kër. woo ab patron de presse bu mel ne Cheikh Niass d'abord manque manque de respect di ko menacer comme quoi a dama bëgg nga dindi lii boo ko dindul ma tëj ko. loolu dafa ñaaw. Mhm. mu wane ne comme dëkk bi tey dafa am benn dictature goo xam moo fi nekk di installé mhm. parce que coupé lii boo ko coupé euh, euh, coupé lii boo coupé wul ma coupé loolu ab dictature la loolu mais li ñu mënta xa li ñu mënta comprendre mooy. Mhm. Euh, gis nga foofu ñu nekk tey ñoom di buur di mi askan wi leen fa teg. te bés dina ñëw askan wi leen fa teg yi mais l' essentiel ñoom dañu xam ne ne bu démb. ñu ngi woon ci côté Walfadjri jamono ji nga xam ne ni Abdoulaye Wade mu ngi jël Walfadjri di ko bunduxataal di ko néewal doole moom Macky Sall daan na fi ñëw. Mhm. di ma ñu masawu. Mhm. ànd ak délégation mhm. comme tey jii ni ko Ousmane Sonko defee te comme tey jii ni ko Babacar Diop defee. comme tey jii ni ko Malick Gakou defee. comme tey jii ni ko ñeneen ak ñeneen defee. kon tey jii bu fekkente ni yàlla dogal tey jii mu nekk ci nguur gi. wëlbatikul la nga xam ne ni moom la ñu doon teg mu tegaat ñu ko <laughs> mën na ne ñun. dafay wane rek wax dëgg yàlla ñun ñu ngi si ñu ngi si ñu ngi si yoon daal. ma ngoog mm. baatu askan wi Walf euh, FM 99 point jëlaat keneen allo. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. El Hadj Abdoulaye Bopp. waaw kilifa gi. Cheikh Kébé Kër Massar. Cheikh Kébé jërëjëf. ñu ngi ziar bu baax. ñu ngi lay fay kilifa gi. di ziare Gidna Omar Ba. jërëjëf. Mm-hmm. waaw di leen mosawu yéen ñëpp. jërëjëf. Mm-hmm. waaw di nuyu si Naoumar Ba analyse yi mu def am na solo lool ba dëgg yàlla. jërëjëf merci beaucoup Kébé. parce que gis nañ bu waree dal si kaw nguur gi dal dal si kawam. Mm-hmm. Mm-hmm. bu waree dal si askan bi dal si kawam. Mm-hmm. waaw te loolu muy dëgg. nit moom bul xool ko la mere ak nga bëgg. ñëpp nga war a yemale. waaw te loolu muy dëgg. Euh, di leen masawu tamit bu baax a baax a baax. Euh, di tamit euh, mboolem ñi bëgg Walf rek. jërëjëf di wax ne léegi-léegi damay dégg toujours ñu naan. ci ni nga xam ne ni nga koy waxatee mais en tout cas daal nguur gi daal. li hmm. e bëri doon dundee ba sax e, deux mille onze deux mille douze. waaw ba deux mille vingt trois li bëri doon dundee e, doon ba sax sikkin mën na kaa dundee ba deux mille vingt quatre. Hmm. yaakaar naa fukki weer moo fi des. te yàggatut yal nañu yàlla may fekkee ak tal. amiin amiin. dara gi ci maam la di dem ba koy nettaliwaat. amiin waay. jeex na amul. Hmm. yaakaar naa ne ba mu toog foofu naan Firawna ak Moussa loolu kon démb si ñun. Mhm. tey boo xoolee ñu ngi ci ñu portable yëpp. mais nag euh, man damay jaajëfal Abdoulaye Wade bu baax a baax. Mhm. parce que xam nga tax si benn côté. Ah, na ne taalibe la. Mhm, murid xaqan la na bëgg. ñëpp xam dafa bëgg diine. ñëpp xam na ne dafa dafa dégg ndigal. ñëpp xam na ne dafa am yërmande. yërmande bi mooy lan. dañ ko tëj mu dem làqatu ji te sëñ Baara mu mu mu woo Abdoulaye Wade mu jégalu ko mu jégal ko. Mhm. te damay dégg sëriñ Mansour Mansour du wax la am solo. mu ne nit boo defee lu baax na nga jéem a fàtte parce que boo ko fàtte wala da nga yàq. Mhm. nit bu ñu la tooñee da ngay jégale. parce que ku bëgg ko ko jégal day nangoo jégale. Mhm. boo boo defee naka su dul noonu. bu ko nangoo fàtte. parce que boo ko fàttee doo ko doo ko tuub te boo ko tuubu dee mën di ko am. loolu mooy base yu am solo yoo xamante ni tey naa ko sëñ Mansour moo wax si base yu am solo solo. Mhm. mais ji nga bëri woon base loolu dëgg. jàppat pour yéen si pédicure yi. dafa am ay nit yoo xamante ni ay siyaasi ni lañ sa alxuraan a ko wax. Mhm. dañu war a musu si ñoom. ñoom la la ñeex rek tey boo wë tey man billaahi walaay booy wër noonu noonu président dëgg moo ñu ko wër. Mhm. moo ñu bañ tey euh, réew réewum Sénégal. parce que tey toll nañ ci réew boo xamante ni tey boo waxee Macky Sall lu ko naqari mu jàppale tëj boo waxee lu ko neex mu bàyyi la nga libre kenn ñu mu faa wax dëgg ku wax dëgg ñu ne diw dafa dafa ñàkk te ku fi wax dëgg ñu diw dafa réew te ñu teg ko fan nit booy wax dangaa war a xool ci diggante yaw ak yàlla man ji nga tey Ablaye bopp hmm. yàlla teeg na ne samay waajur suñ may gërëm te dëgg la ñuy gërëm suñ may xarit te dëgg la ñuy xaritee hmm, am na ci ko waajur gërëm te yàlla gërëmut ko bëri na ko waajur xarab te yàlla xarabut ko hmm, léegi léegi ustaate dañuy jur naan bu yàlla gërëmee bu waajoo gërëmee yàlla gërëm bu waajoo xarab yàlla xarab déedéet <laughs> tey bu fekkente ne man ci misaal damay jëf sama lu alalu jàmbur damay jëf samay waajoo mu may gërëm hmm. su ma waxee yàlla gërëm na ma waxuma dëgg hmm, hmm. nañ bàyyi caaxaan yi te wax lu fi nekk jërëjëf mais ñii nguur gi yàlla nañu yàlla mos a si ñoom te dinañ fi juble mu neex la mu naqati leen dinañ fi juble jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax uh, ci kóolute bi Seydina lii day wone Eh, cofeel bi askanu Sénégal am ci wal fajri te mhm. itamit eh, ànd bu yàgg la goo xamante ne du tey la door eh, ñu jëlaat keneen ci ligne xamante ne mhm. xëy na ñañu jiitu ñoo ko fi samp boobu ba léegi alo allo asalaamaaleykum maaleykum salaam El Hadj Abdoulaye Bob waaw kilifa gi maa ngi lay ziar ñu ngi lay fay Seydina Omar Ba naam maa ngi lay ziar la jox wàcc wàccuwaay di jëkkul waaw ñu lay jox sa wàccuwaay jërëjëf ku baax di siyaar waa rajo bi yëpp. Mhm. Walf Rosette moo leen di nuyu. Omar Dia. waaw ñu gën koo mhm. xam ci Omar Dia. Mhm. Ah, ba. moom daa bëgg mburu <laughs> ci lu wér. mais nañu a baax. ngi lay delloo ziar. Euh, Seydina Omar. ñu ngi def liggéey. jërëjëf yaa ngi ngeen nekkal ci plateau bi yëpp. wala ci studio bi. ndaxte dëgg si nopp si làmman lay jógee mais si nopp lay dellu mais xol da koy jàpp. Seydina Omar hmm. suñ fàttali ko tuuti ci gannaaw 2011 wala sax 2008 keroog ba Abdoulaye Wade di woo Macky Sall mu yendu dikk ñu ngi koy déglu de hmm. suba ba ngoon Walf di ko def direct hmm. am na benn reporter boo xam ne dama fàtte turam fii jamono ba mu jógee Walf stagiaire loolu suma juumule ba mu jógee Walf Océan FM la nekkoon ab diir dana fa daf yéene kaay tur bi nag laa fàtte mais suur boobu ba Macky Sall jógee fam fañ ko woowoon wallahi presque trente minutes yi teg wala une de temps Walf ji da koo dëpp micro teg ko caméra. Mhm. Macky Sall daa wax lu ko neex ak lu ko naqari. Walf ji da koo teg suba ba ngoon mhm. amul benn télévision bu ko amoon Walf moo ko jël image bi joxe ko léegi li ñu ma waraloon loolu néewal doole ku ñu néewal doole askanu Sénégal mhm. te loolu kan noo ko doon def muy Ablaye Wade. si jamono jooju moom Macky Sall moo nekkoon avocat Walfadjri lépp lu naqadi Walfadjri da koo naqadi lépp lu neex Walfadjri neex na Macky Sall man dama ne gàcce ngalaama Walfadjri gàcce ngalaama journaliste yi nekk Walfadjri ndax mu jël poussé bi mu réer seen loxoom ndax xamul tax man dama daf toppee Walfadjri quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-huit boog di laa commencé bàyyi xel Walfadjri boobu maa ngi Jurbel kër sëñ Mor Mbaye sa laa doon jàng alxuraan mhm. booba Walfadjri dafa grâce woon ñëw 2000 Abdou Diouf nguuram jeex Abdoulaye Wade nekk fi. Mhm. Walf Fadjri ñëw déranger Abdoulaye Wade ak nguuram. ku ne xam na ne pour publicité ñoom seen mooy doxal ab kër de presse. Mhm. mais Walf Fadjri xam nañ ne am na période boo xam ne man dama daan xëy suba ba ngoon di xaar publicité Walf Fadjri suba ba ngoon benn pub lay dégg. Mhm. bu bëree ba bëri ñaar lay doon. te terewul Walf Walf a ngi fi. Walf a ngi fi personnel dans ñu ngi liggéey. ñu dem ba ci biir. ñu ànd ak Abdoulaye Wade di jéem a ñoddi ay journaliste yu am doole ci Walfadjri mhm. man dégg naa ci làmmiñu nit koo xam ne ah naa mu fenn mais gëw ma mu fenn mhm. mu jël la mu ne lu luñ soxla ci Walf mooy rocc seen journaliste yi bañ jàppat Walf dootu nekkati mhm. ma ne wallaahi lu sant Walf koo xam ku ne doo jéem ngir sax faqasal Walf léegi Walf di dundee loolu pendant douze ans Sénégal soppeeku ñëpp yaakaar na Sénégal soppeeku na ndax am na njiit loo xam ne dafa judd avant indépendance maam galeeru jàng dox yóbba maanaam di jàng di dox yóbbaale ma di yëg si wa wàcc jël wala wàcc maanaam galeeru galeeru ba xëy tay dugg pale ñu ne lépp loo xamante ni sénégalais yi maanaam euh, coono la ci ñoom kii xam na ko kon sénégalais yi ñoom danañ am jàmm ndax kii kat dana bàyyi xel néew di doole yi boo bàyyi xel siit la nee na yàllaa ko wax de mais si leen wax na ko mhm. nee na yow ñi ñu jiite yow mu féete kaw nit ñi yërëm na ñu nga seet ñi nga féete ñi la féete suuf ndax yow ki la féete kaw yërëm la xaw ma wax ba dina leeram de mais moom mu ñu jiite mhm. na yërëm ñu mu féetee suuf ndax moom ki nga féete kaw yërëm ko mhm. moo ne ñun suñu doole ñu lañ boolante jox ko suñu moyen lañ boolante jox ko na ko doxalal bu méttee ñu muñ su neexee ñu ànd bànneexu ci moom mu jël lim na def ko ci boppam jël doole yëpp def ko ci boppam ku ma jege nangul ma si li ma nekk su rafetee nangul nga ma su ñaawee nangul nga ma yaa fi gën yaay ko baax ki mm-hmm. képp koo xamante ni nag da na li ngay def li may def ni fii baax na waa fii baaxul kaay naa lu duur ba ngi bëgg a dee kenn du wax mm-hmm. jaay doole boobu nag moo war a jeex. jërëjëf fa woon nañ ne de. Mm. moom bu ñëwee jaay doole bi dina jeex mais dafa ñëw rek gën a yokk. Mm-hmm. ak njiit nag da ngay am yërmande. na fàttali ko de. Mhm. te day jeex de ay weer a ko fi mhm. te lu ne dañ koy nettali. Babacar Diagne nag moom bu fekkee ne ku ñëw rek mu maral ko ay dàllam. <laughs> ah billaay dina jeex. Mhm. ña liggéey liggéey am moo am mooy am ëllëg ñàkk liggéey ñàkk am. te loolu lañ gëm. te réew mi dafa dafa war a soppeeku de. jërëjëf xaw ma nag ku koy soppeeku. jërëjëf ku koy soppeeku dafa war a soppeeku. am na solo euh, jërëjëf Walf. ñu ngi lay jaajëfal Omar Dia ayca jaajëfal nañu ko bu baax a baax mais euh, euh, euh, ci biir ci biir wax ji ah balaa ñuy jël bëri auditeur parce que man dafa am loo xamante ne xaw na lënt ci suma xel quoi mm-hmm. mooy sànq ba léegi nit ñi boo gisee dañ naan Macky Sall Macky Sall Macky mm-hmm. mais man j'aimerais bien savoir ndax Macky Sall maanaam moom dafa jël téléphone am woo Babacar jaañ ne ko coupél ma Walfadjri mm-hmm. wala boog Babacar Diagne ci fan la sukkandiku ba am sañ-sañu coupé Walfadjri ci contexte yooyu mais Babacar jaañ mënut a jël dogal te njiitu réew mi Macky Sall ña ko supérieur yëguñu yëguñu ko mm. waaw ndax yow mii sa doom bu bëggoon a jëf yenn yi faw mu yëgal la mm-hmm. donc amul sañ-sañ ca kër ga donc tey Babacar Diagne sañ sama sañ-sañam neew na ca lañ ko dénk mm-hmm. donc xëy na ndey mbilli ga mun na ko ne ee eh, lu jot jot na jëf jëflanteeg ñii ak <laughs> lii mais nag responsabilité bi ñoom ñaar kenn ku nekk dañ koy séddoo hmm.